waaye ñoo nuyu di ñu ñuy suivre France boo ñu war a ñëw ci biir doo wax ci match Chelsea bi ak Newcastle ñu mën a wax Newcastle dafa éliminé Chelsea malgré match bi jeexagul instant yii Newcastle am na 3 bi Chelsea am 1 boole jëg nag di ko mel ne lu koy bëgg a rey euh, sunu gaynde bi nag moo ni gën a intéressé mi ngi ci Chelsea moom Nicolas Jackson mi ngi dem match mais mën nañoo wax ne tey gis na ci ay failles yoo xam ne failles yu danger la ñoo xam ne wuru mën a am dañ ñëw ci loolu. bañ koo développé mais laataa loolu dañuy wax yi ñuy gan ci bile page yi ngeen abonné te ngeen bës cloche notification bi ngeen am ay vidéo au taaral euh, fii Jom Sport ak Chelsea nag bi mu am ay yoo xam ne war na ko mën a taal dafa sàggan ba ko si yoxo yoxosu ko dugal ko deux taxawaat ba repéru ni bi mu nekk 3-1 mu nekk loo xam ne nag euh, wurul mën a am ci képp a na Chelsea ak ñaari bii ni jege ak espace yi nga xam yi ñu ngi koy maye ak seen attaquant yi ni ñu ràññee ku mel ne Sterling waaw dafa yi jox na benn passe Nicolas Jackson Nicolas Jackson da kaa mais nekk fa di téye yi défenseurs yi ñu nangu bal bi loolu tamit joojuwul attaquant ci bisu mel nii ngay war a wane sa bopp max yu cher yi bu ñu joxee bal yu cher yi da nga koy def ci koñ mu jeex bu ko defee nga maanaam soo équipe Sadio Mané man ñàkk ñàkk dugal bi yu bëri dafa daan génnee Léopold max si mel nii jékki-jékki dugal bii boo xam ne kenn mënut comprendre bii fan la jaar dugg attaquant nag bu bëggee nekk Pérou il faut nga def loolu ci wàllu football mais nag Nicolas Jackson jàmbaar la mu ngi wane boppam mais nag mën na gën a wane boppam ko profil bi mu wane pour man question jàmbaar la ñun waaye nag ñu wane ni def dafa des wala ñu war a mën a wane benn liggéey bu gën a fort que liggéey bi ñoo ne guddi yi